aousu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim euh, ba tey euh, ñu ngi ci xilaas bi mu ngi toll ci bi nga xamee ne Seydina Mohamed mu ngi ci biiru yaayam fa lañ jëm ñu waxoon ne rajab la ñëw ci biiru yaayam Aminatu nak mom mo wax nee bi mo ëmbee Mohamed sama soppe bi yang lebih ba nek ci wëru ñëk wa te moy rajab dama nek ci nelaw yu neex am ko dubbu ci man gor gu leer kan ku neex xet legi bu nan ko marhaban bikki marhaban bika marhaban bika yaa Muhammadu mu ne ko ah yow kenn marhaban bika yaa Muhammadu yow yaay kan Amina mooy ñett ki naan marhaban bika yaa Muhammadu yaay man man man man maay Adama abul basar mu ne ko loo bëgg lu la tax a ñëw mu ne ko ah, Amina bigal yow yaa ki ëmb sangu mbindéef yëpp. ñëpp nag mu ne ba weeru ñaareel wa jotee am ku ñëw ci man ba ñëwee mu ne assalaamu aleyka ya rasulallahi mu ne ko yow yaay kan ak loo bëgg mu ne ko man may siis may doomi aadama yow Amina yaa ëmb nga ngi mbindéef yow la yaa am saahibu ta'wil wal hadis yow ñettal ñëw am ku ñëw ci man ne asalaamu aleyka yaa nabiyallaahi noo ko yaakaar mu ne man may Idrissa loo bëgg mu ne man dama lay bégloo yaay ki ëmb yéen ñeent bi nga xam ne mooy njiitu ñëpp ñetteel bi bu mag wér weeru ñetteel wa mu ne bu ma nekk ci weeru ñeenteel wa na ko dugg si ci man bu ñëwee mu ne asalaamu aleyka yaa habiballahi mu ne ko yow yaay kan mu ne man maay noox mu ne ko looy wut mu ne dama ñëw ngir bégal la mu ne ko ah mu ne ko yow yaa am bu borom ndimbali ko yàlla dimbale yow la mune cewek ma dem ci weeru juromel wa am ko dugg ya ni assalamu aleykum ya shahwatullah ya shahwatullah mu ko yaay kan nak man may hoot dama ñu ngir bégal la yow ya ëmb ki ramu jam ñi te shafaatul usman ci bisu bisu deul ba mo ngi wéru juromel wa mu ne bi am ko dugg ci man ne assalaamu aleyka yaa rahmatallahi yow yërmande yàlla mu ne ko yaay kan mu ne man maay ibrahim xalilullah mu ne ko loo bëgg mu ne dama leen bégal yow yaay ki nga xam ni yaa ëmb annabi yaa jalilallah yow yaa yor nabiyu al jalilu weeru juróom-ñaareel wa am ku ñëw ci man bu yaa man ixtaarahu laahu ñu naan yow mi yàlla tànn ci weer juróom ñaareel wax mu ne ko waa yow yaay kan mu ne man maay Ismaayil Asabix mu ne ko yow lay wut fii mu ne dama ñëw ngir bëggal la yow yaa yore yenente bi nga xam ne mooy koo xam ne ñëpp ñëpp ñëpp mu leen lëng ci kanam yàlla ñépp ci loolu la nekk ron drapeau am ba weer juróom-ñeental ba mu ne am ku ñoo ci man ne asalaamu aleyka ya qiratallaahi mu ne ko yow yaay kan mu ne man maay Moussa bu ne Imran mu ne ko loo bëgg mu ne yow yaay ko ëmb ki yàlla wàcce alquran ci moom alquran mi wàcce ci moom yaa ko ëmb ñu weeru juróom-ñeental ba nag am ku ñëw ci man assalaamu aleyka yaa xaatama rusulillahi ma ko yaay kan mu may Iisaa na Maryam ma ne ku loo bëgg mu ne yow yonent bi gën tedd gën a màgg yaa ko ëmb ne ko nag wasaala ankil boosu wala anna wa soqmi wala alami loolu nag la góor guy junj ci weer yi nga xam ne ñoo ñoon di ses yonent bi kon loolu demee dégg nga euh, kon ci loolu ñuy jàng moo tax mu ni wajjaa a ñëw na mu aadamu alayhi salaam tafsiran ngir bëggal yonent bi aadamu wasiisu doom ja laxaa ngir amee nitu ko ca weeru ñaareel wa Idrisu ma topp ñëw na ngir bëggal Adama ngir bëggal Aminata kay ñetteelu weer wa Nuhun ma topp ca ñeenteelu weer wa nekk nun wax woodun ma topp juróomeelu weer wa wal xalilu Ibrahim juróom-benn dara sim na ko mën la bu neex nga wax xalila simi noonu la bindee moom maanaam nga simi na nga melal ak xalila Ibrahim dégg nga su masal bi topp Ismaila ñëw na mu yénte yàlla Ismaila kalimullaahi ka wax yàlla yénte yàlla Moussa kilmatoo kàddu yàlla yénte yàlla Isa muy nag min awali sana rek njëlbéenu weer ba fi tarti bi tasale bi laa tey mi bu ci benn benn ngëlëmande wala benn def def la kon njëlbéenu weer aadama la ñaareel ba siis la ñetteel ba idris la ñeenteel ba noox la juróomeel ba xóot la juróom-benneel ibrahim juróom-ñaar ismail juróom-ñett moussa juróom-ñeent isa xalal nabi yal nekk ci yonent bi waalim ak ñoom añmen mboole seen salaama rabbina jàmm gu borom bi ba salaama rabbina daay man faw waaye nag xamal mu yóbbaale bisaa biim seen xan doole bi moom mu ngi doog am benn wéy bi ci la wéyal ñëpp ci la dugal ñëpp lu commencé ci aadama bu ci yonent bi ak saabaa ak ñun sax dugg nañ ci bi sax biim la wax nee nag wa maata dee na diixul ñaari téeméer mi ne niswaan yi ca jigéen ñi nekkoon ca Makka ñu asaf ngir njàqare ñu ne nag eh, seen butitu njuréel yi ñoo dee seen butitu njuréel yi ndax ku nekk dafa yaakaaroon ne yaay jur ki gën mbindeef ci kaw suuf ki gën ci mbindeef ndax ñi nga xam ne ñoom ñebu ahlu kitaab mooy yoota nasara ñoo waxoon ni ci ñoom lay génnee ku nekk di ko xaar ne yaakaar ne yow yaa jur ku nekk di ko xaar at moomu nag yéen bi boo ci ànd amina am ñu ne ñaar téeméeri bakkan ñoo rot am ñu ne déedéet ñoo dee commencé den xam nga daat juróom-ñeent fukk la yaa fukk la muy téeméer xaaf téeméer la mu ne araf nag xam nañ saaka loolu ñu ne ko xaan ci nga xam ñooy gisaane laa téye bul def def lawu ñu ko xam le ah gisaane kat yi ñoo ko xam le ne fa yàlla ma kéemaan ñeel ko leetu gu dugoo xam ne xarraa aji leer naññ naññ naññ la waaye xam nu ko sa na faa ci guddi ga alkanaayisu église dégg nga wax bi wala as mu xërëm yi mi xam ne di toroxte xam nga ñaari baat bu ñu bu bokk firi bokk firi da ngay àbbal benn ba ko bu neexee nga bu njëkk bële laata yi mu bële nga firee ko bu lot bi nga firee ko bu def def lawu maanaam bu ci am ngëlmande hmm. nee na waxat talaaka dajee na woosul xaafi xëy nii njaaxal lii penko xarfu ba saalum bay gànnaar daje na ñoom ñëpp kama sabakinul bahri comme ni nga xamee ne way dëkkee géej yi xalaaq daje na min niam wala mi ne naam ci ay xiwal ngir lan kontaante ci ñëw yonent bi sariru kulli malikin nee na lala bépp buur sara mujj na mun mun takisan day ndax yonent bi dina ci suuf kenn ci kaw bilaa xilaaf lu benn wuute mooy ne wa rabbil kaabati gi ñaay borom kaaba gi alxaram yi xam ne moom xormaal ba dégg ñëpp seen lal dafa dafa juuti ñu faree eh, loolu mooy li am nee na xaddaa Euh, faatu namu bi abwaa fu ñu abwaa ku faatu mooy kan ana faaxel ba abdullahi mooy wajur yonent bi wajuram wu góor xëy na ma daa ba passé yi ñaari weer yoo xam ne ci ëmb ba ne xataa lii wax nag asfarul kalim yi moo gën a fi ci wax yi am na ñu wax leneen moo tax waxil waxeef ne fii tay batin ñu ne foofu la faatoo du abwaa de ñu am ñu ne du foofu xar kaa nekkoon na ba tey marfuun woo bàmmeelam ba fi daari taabi acin façon mooy sundakul nag min wax mi ci def daloo dégg nga bi ne taabi acin la ne taabi atan dabata bind surqaani war bi bi too i taatombe bi fawq ci kaw wa aynin dañ boo xam ne xayri mun aji mi du bu tomb buñ tomb la nag mottali baytu boobu ne yuruwaa def so def solo bi nuunin déggal de wa xay nin mbax du gën a nuun nga nekk mun ajamin mun ajamatin wala mu jamatin waaw mu jamatin buñ tomb maanaam li bëgg xam mooy am ñu wax naabiqatin yuruwaa ba tey bi nuunin wa xay baadu mu jamatin waaye nag wax bii nag ñu wax naabiqatin boobu min xayri min xayri aswin amul askane fenn wala dabtin amul takk xanaa si war xalam lu muy rek bind rek waaye kenn diwoo ko wax déedéet sadaqallaahu al-aziim wa baraka rasuuluhu